rafetlu tamit ah, li am fi dembu jurbela di ci sant bu nak le président de la république Macky Sall parce que tamit lepp mom la euh, parce que diggoon nañu ay tali defal nañu ko parce que ko ne xamna ne jurbel euh ay tawatam tali def ci bokon donc suñu defale 11 km de route bañ ko don inaugurer demb vraiment dañ ci dañ ci dañ ko ci sante bu baax di ko ci remercier bu baax mais aussi di sante leader coalition bi yep parce que ñom ñep demb dañ ci am taxaw bu rafet ak toute la jeunesse euh, di diko tambalé ci le ministre Dame Diop Euh, le directeur Mustafa Gueye, euh, le DG Souleymane Soumaré, euh, DG Saher Diop, le directeur Pamoudou Fall, honorable député Sadio Diakhaté ak le maire ñoom ñëpp vraiment ñu am ci taxawaay bu rafet mu def une def mobilisation bu am solo vraiment pour accueillir ministre bi nga xam ne le président yabalon muy Samba Ndiobène Ka pour mu ñëw présider inauguration bobu noonu. man bima xeye suba la ko dégg ci yenn ci presse bi. ñuy wax ne am na ay yuuxu yu fa amoon démb ba tudd ci ku mel ne Dame Diop ne dañ ko doon yuuxoo xor xol parce que ku gis démb euh, li am fi Jurbel xam ne Jurbel waaye dañu teer woon délégation bi comme ni ñu teeroo buur ah may lancer un appel euh, di di di di ñaax ak di soññ vraiment suñu mbokk journalistes yi parce que ñun ak ñoom mënuñoo tàqalikoo liggéey bee ñu boole donc ñoom itam bu ñuy traité ay information nañ koy traité ni mu amee di ko waxee ni mu amee presse boo xam ne xëy na peut-être ay nit wala ay yenn politiciens ñoo nekk seen ginnaaw di leen jox ay xaalis ñu jël ay information di ko traité nu mu leen loolu vraiment buñ dañ ciy dañ ciy dañ ciy am méthode xol Jurbel waaye xam nañ ki ñu doon yuuxu kon bu ñu jëlee yuuxu yooyu bëgg cee bëgg cee toftale le ministre Dame Diop ñun xam nañ ne ay nit ñoo nekk ci seen ginnaaw di leen manipuler pour ñu pour ñu traiter euh, information bi à leur faveur mais loolu nag ñu leen ci lancé un appel te nag xam ne aussi am na ci yoo xam ne duñ ko nangul kenn nag parce que nekkuñ fi pour nekk waxuñu pour nekk l' avocat du mais def ci am loo xam ne en tant que ay Diourbellois euh, en tant que nekk ay nit yoo xam ne ay nitu dëgg lañ am na ci loo xam ne bu ñu ko déggee te nekkul dëgg aussi dinañ taxaw ni lii nii ñu ko waxee ni amul noonu ku gis Dame Diop bi muy ñëw Diourbel démb xam ne Diourbellois dañ koo teeru comme ni ñu teeroo buur